laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. taalaa wa barakaatuhu. mbokk yi noo ngi jiital ci sunu nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal dolli ko ak wér. di ñaanal bu baax sëriñ Serigne Amdi Fall Mudu Mbenda sunu boroom gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér bokk yi jotaay ngi boo xam ne saa yu màggal gi jàllee xel yëpp daje ci te muy jataay bu jaadu bu xol yëpp nangu bés bii nga xam ne ci la maam Cheikh ma Fall radiyallahu anhu amee woon ngërëm ci Serigne Touba mu tombe woon ak fukki fan juróom-ñaar ci weeru gàmmu yàlla dogal Serigne Bassirou Fall alxuraan daa ko taxawu ci ndigalul ku fi mos a nekkal Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina te daa ko ànd ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak bokki taalibe yi ak yoon wi. yàlla dogal ren mu war a doon dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmo wi war a dëppoog 24 octobre 2021 bi nu nekk fii ci jànnatul waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. gannaaw bu nu feddalee suñuy siyaar ak suñuy ñaan ci suñu jàmbaar ja fi nekkaloon maam Cheikh mu Fall di Serigne Cheikh Jëmb Fall yal na yàlla dolli ay leeram te taas na ci barkeem laat bu baax ba Basirou Fall jàmbaar jii nga xam ne moo daan taxawu bés bi naka jekk ànd kook ñëpp yàlla fey ko ab liggéeyam ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul diina noo ngi nii toog ak Serigne Gunda Fall mii nga xam ne moo fi nekkal Serigne ba Fall alxuraan jotaayam def ko ci ndigalul mbooleem njabootug Serigne Mbacke Fall ci njiitul Serigne Bada Fall mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Mbacke Fall ànd ko rak Serigne rakam yëpp ak njabootug Serigne Mbacke Fall. bu ñu nee suba la màggal gi nag sëti Serigne Mbacke Fall yi danañu am ab conférence boo xam ne ni ñu ko daan defee danañu ko def fii ci jànnatul waa bu soobee yàlla. am di Fall moom Serigne Modou Mbend di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. mi ngi nuyu ñëpp di tàmbalee ab nuyoom nag ci jëwriñam ji. di kilifaam di sëriñ Modou Mountakha di ñaan yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko di ñaanal it jàmbaram ji nga xam ne moom la wuutu mu doon magam di xaritam di kilifaam muy sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ñaan yàlla sunu borom yeesal yërmande si kawam yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di nuyu mboolem njabootug Cheikh Ibra Fall gi te di leen yeesal ay cantam ak i ngërëmam ci mboolem seen kenn ku si nekk sab taxawaay sëriñ bi rafetlu na ko bu baax a baax sëriñ baa ngi sant ñëpp rek mooy buntu kër Cheikh Fall yëpp sëriñ baa ngi leen di sant si taxawaay bii nga xam ne am nañ ko ah euh, jataay bii nag ni ko sëriñ Omar kan balay sa waxe jataay la boo xam ne bii bu am solo la jataay boo xam ne bii xel yëpp a ngi si nag jàpp ko ngir waxtu wu nu masaa dëgmal màggal gi rek waxuma ñu weesu ko xel yëpp day jëm si bis bii nga xam ne sunu jàmbaar ja di sëriñ Basiir Fall arxuraan moo amoon ndigalul taxawalal ko maam Cheikh Ibrahima Fall muy bis boo xam ne dafa waxoon ne du bisam moom waaye bisub Cheikh Ibra la ba tax diiru li mu fi nekk di ko taxawu da ko àndoon ak mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima ci ndigalul ñi fi nekkal sëriñ Touba yëpp daa ko taxawu ba am ndigalul mu ñëw fii fu tuubaa mu ñëw ànd kook njabootu Cheikh Fall gi di ko taxawu ku ñëw si bis bi di gis ni loolu yi lu wér la ah bis nag. nga xam ne li mu màndargaal mooy li mooy mooy li nga xam ne ñëpp teg nañ seen bët tey ndax mooy njariñ li nu mënta ñàkk muy ngërëmul Cheikh Rafal ndax lu nu am rek ngërëmul Cheikh Rafal moo nu ko may bis boobu nga xam ne moom la tànn nag am si ndigal di si màggal ngërëm loolu yi nga xam ne sëñ Tuubaa gërëmoon na ko Cheikh Rafal te muy ngërëm loo xam ne sax dafa dolli ko waaye sëñ Cheikh Rafal moom sëñ gërëm na ko ba tey waaye nag bis bii day bis boo xam ne bii bis bu jar a màggal la ndax lépp lu yoon wi am rek ci bis bii la ko amee ni Serigne Touba waxee woon ni lépp lu mu am si demam gii bisu 18 safar bii la ko am ndax bu bis bi amutoon kon dem gi du am te bu dem gi amutoon pay gi du am Cheikh Rafal xam ne bis bii nga xam ne si la am ngërëmul Sëñ tubaa si la si la si la buubi njaam yëpp tekki ko si la leeral yoon wi nga xam ne mooy yoon wi jariñ bépp ab taalibe wala képp koo xam ne rek sag bëgg jublu na Sëñ tubaa wala Cheikh Ibrahima Fall mu am si ndigal nag di ko taxawu moom Serigne Bassirou Fall lu toll ne at yi mu ko taxawu lépp mu làq si ay ngërëm njabootug suñ Tuubaa ak njabootug Seera Faal gépp mm, sëriñ bi di ko ñaanal yàlla suñ borom dolli yërmandeem yàlla suñ borom dolli ay leeram li mu liggéeyal Seera Faal lu yaatu la kenn ku ne teg nga si sa bët aw turam àgg na fu ne te loolu pas-pasam akuk dogoom moo ko ko mayoon waaye nag waxtu ko masaa taxawu ma da see amoon ndigalul jëwriñam ya dale si sëriñ Modou Fallilou Fall nga xam ne moom la si daa àndal ba noppi koo gis mu ànd kook Serigne Cheikh Jëmb Fall waxtu bis bi masaa jege si nii mu defoon si Serigne Amdi da ko daa def si Serigne Cheikh Jëmb mu yeesalaat ndigal li looli nag tey jii Serigne Ngunda mii nga xam ne moo ko fi wuutu ak njabootam ñu leen di ñaanal yàlla na suñu borom yàggal taxawaay bi barkeb Cheikh Ibrahima Fall ñëw na fi Serigne bi di laaj ci ndigal loolu yi nga xam ne moom la doon moom la doon yeeslu si Serigne bi jox ko ndigal xamal ko ne ko. Ah, lépp lu Serigne Bassirou Fall alxuraan daa taxawu am nga ndigalul taxawu ko dellu wax si ne bis bii nuy dëgmalit bëggoon na ñëpp taxaw si taxawaay boo xam ne bii dina fànq booleem taxawaay bu mas a am rek nee na bis bi daal nañ si am taxawaay bu mat sëkk boo xam ne bii ah dina gàcceel bépp taxawaay bu nu mas a am si bis bii si wàllu pas-pas si wàllu jëf ak si wàllu kennal Cheikh Ibrahima Fall rek xam ne li nu am lépp moo nu ko may kon sëriñ bi wax na ni ndigal li mi ngi koy yeesal si sëriñ Gunda Euh, di ko ñaanal it nag di ko si gunge di si ànd ak moom fa fas ne ko ànd ak moom ak njabootuk Cheikh Fall gépp nag ñu taxawu ko euh, nañ ko daa taxawoo wala nu ko raw. jataay bi lépp nag kaddu yu ndigal rek la yoo xam ne da koo jëlee ci ay kilifaam muy Serigne Bassirou Fall alxuraan suñu jàmbaar ja yàlla na yàlla yokk leeram te defal ko tawféex ndax liggéey bi lépp moo ko naaloon mu teg ko nag ci loxol Serigne Gounda Fall bàyyi ko fi mu wutu ko fi ànd ak ay rakam waajal bisub ngërëm bisub ngërëm boobu mooy bis bi Serigne Touba gërëm maam ci Daaru Salaam tolla woon ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm bis boobu nag ñu koy amal fii ci Touba Jannatul Mahwa Serigne Bounda Fall nag war koo taxawee ànd koog mboolem njabootu maam Cheikh Fall mboolem ay bokkam ginnaaw loolu bi nag mi ngi ciy woo Serigne Mouhamadou Mountakha bu tuddee Serigne Mountakha nag tudd na njabootu Serigne Touba gépp ginnaaw loolu mi ngi woo waa kër maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim bu tuddee njabootu Serigne Touba gépp day rakkam ñi ngi ci biir ginnaaw mi ngi ciy woo mboolem njabootu maam Cheikh Fall gi nga xam ni ñenn ñi ay kilifaam lan ñenn di magam ñenn ñi di rakkam sëriñ bi nee na mi ngi ci woo ñëpp di ci woo waa kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor naka noonu mi ngi woo mboolem seex yi aju ci kër maam Cheikh Fall sëriñ baa ngi leen ci woo mi ngi ci woo mboolem taalibe yi ak mboolem fa ab jullit nekk ndax bis bi day bisum njariñ te sëriñ bi ni mu ko doon defee mooy da ko doon woo ngir dimbali jaam ñi moom it seem dañ ko tekki loo xam ne li mu bëgg mooy lépp loo xamante ne waajur da ko doon def doon ko mu yokk ko waaye du ko wàññi ginnaaw loolu mi ngi ci woo daayira di ci ñëpp di ci woo borom réew mi muy président Macky Sall ndax diggante mag sëriñ bi ñëpp xam nañ ko mi ngi ko ciy woo di woo di woo ministre de l'intérieur di woo gouverneur Diourbel di wo euh, préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam Abdou Lahad Ka euh, Abdou Mbacké Ndaw mboolem ku nekk ci administration bi sëriñ bi nee na mi ngi lay woo ci bis bi ginnaaw loolu sëriñ bi nee na daa mbir moo xam ne sëriñ bi da ko daan def muy mbooleem mboolem waa kër sëriñ Touba yi bu nee suba la daa am bernde yoo xam ne sëriñ bi da ko daan togg daan lool di ko jox njabootu sëriñ Touba gi bu noppee wër ñi nga xamante ne dañoo bokkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall doon liggéeyal sëñ Touba ci keppaaru sëñ Touba sëñ bi da leen na daa bëgg bis boobu bu ñëwee ñëpp ne ngërëmul Cheikh Ibrahima Fall tey ji la woon sëñ bi neen ndékki yooyu mi ngi koy soññi di ci def ñëpp bëggit ñu def ci loo xam ne day kawe suñ jort fu daara alxuraan ne ak fu mu mën di ne bëgg nañ fay ay bernde ne ko sëriñ bi daan defee ginnaaw loolu bis bi suñu xëyee dañuy jàng alxuraan ak sikar def salaatu ala nabi ba takkusaan ñu def cérémonie officielle bu ndee ba 23 heures ñu def ay bernde bu ndee ba guddi ga Cheikh Ndoye Sikour la ak sëñ Matar Niang fanaanee sikkar tudd yàlla ba samante sëriñ bi yeewu mbooloo mi ñaanal leen ñu waajal ko ba déwén ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu man nag ñu wax loo ma jëm loo ma ci mboolem ko yor ab daayira ci réew mi ak ci bitim réew li ñuy wax diaspora bi teñ daa ànd ak sëriñ bi ci bis bi ñooñu nag dama dama leen a bëgg nag xamal nag ni ñu ànd ak sëriñ bi nan la sëriñ bi dafa noo wax ne ma man basir du ma yàq jëfi ba mu waxee loolu nag da koo jëf nu gis ko ndax daayira boo xamante ne andi nga say nag mbaa nga indi sa alal sëriñ bi dala koy dellool ci bis bi ndax bis bu bu ñëwee sëriñ bi daf nuy woolu nun daayira yi mu jël ci limi nag loo xamante ne ak i gileem du jaar ñu wax ci télé mbaa ab rajo ñu defar ko ba mu sell delloo waat ko ci njabootu Serigne Touba nga xamante ne ñoom la fi Serigne Touba bàyyi te jaajëf ji seen maam moo ko joxoon sunu maam Cheikh Ibrahima Fall. kon sun dee màggal boobu war nañ koo teg foo xamante ne ñoom danañ ci xamante que kon jaajëf ju mat ju rëy ni ju tol nii kon biñ ko bàyyi njabootu Cheikh Fall ñu ko yëkkati kon ñoom ku ne war caa mën a gis boppam waaye nan la ko sëñ bii dafay am na ku ñuy wax Baye Ibrahima Dieng nag nañ dañ ma koo tuddloo mi ngi ci diaspora bi. jëfam dafa rëy ci bis bi lool ak waa bitim réew ñu ànd ko xam ne fii ñu dugal seen jëfkat lu leen di jëriñ tey la lu leen di jëriñ àllëg la kon sëriñ baa ngi soññ ak mboolem bitim réew kon nag fu daayira nekk bu ne bu déggee sama kàddu gi xam ne ne jaat na yell na ci mu ànd ak mbooloom teew ci kanam sëñ Gunda Faal mi nga xamee ahlu paaleen gépp dañ koo jox tiitru bis bi mbir mu jiite ko waa ahlu Mbàkke jox ko ko. jërë ngeen jëf mbokk yi kon bés baa ngi noonu am solo bi. mën nañ koo xamee ci jamono jii ko sunu borom tàbbal dañuy jàll màggal gi jàll gàmmo gi bés bi ñëw loolu mooy liimaan ak lislaam ak lisaan te moo doon doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. Serigne Gunda Fall wax ne gannaaw ba mu jotee ndigal ci ay kilifaam ni ko sëñ Basiru waxee léegi mu ngi sàkku ci daaray alxuraan yi ak kuréeli xaside yi nañ ko daan àndeeg Serigne Basiru ñu defee ko noona lu ci waay man rek ci alxuraan ak xasida nu yéene yool bi maam Cheikh Ibrahima Fall bar babul muridina ak njaboot gi nga xam ne ñoom la daan àndal liggéey bi. mbooleem daare alxuraan yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Touba ak yi nga xam ne ñu ngi ci biir Darou Salaam ak Darou Moxti ak Njaareem rawatina waa kër sëñ Malick Dieng sëñ Abdou Dieng ak bokki daare alxuraan yi nekkal foofu yëpp ci tund wi ñoom ñëpp. sëñ Gunda mi ngi leen mi ngi sàkku ci ñoom nañ ko daan ànd ak sëriñ Basiru ñu àndee moom noonu te lu ci waay jàng ci alxuraan ak kuréeli xaside yi ak lépp lu waay man ci salaatu ala nabi ñu def ko addiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yool bi ñu jëbbal ko maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootam nga xam ne ñoom ñoo daan taxawu bis bi naka jekk sëriñ Bas nag danaa wax ne lu ñu tënk-tënk seexi sëriñ Tuubaa yi nañuy tudd ñii tàmbale ci maam moor Jaara maam moor Mbakke moom soxna Jaara borom saam ak njabootu maam Thierno Ibra Fati ak njabootu maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam digg mag maam Cheikh Rahim Fall ñëpp xam ko ak njabootu sëriñ Adama Guèye ak njabootu sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak njabootu sëriñ Issa Diène rakki Cheikh Ibra Fall ji nee na ñooñu ak waa kër sëñ Mun Dumbe Xabaan nee na ñooñu ñu ngi leen di yëgal màggal gi di ko ànd ak ñoom ak bépp cheikh boo xam ne cheikh la ci kër Serigne Touba ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyiwuñu genn kër ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci ànd ak ñoom ci bés bi incha allahu taala di fàttali seeti Serigne Mbacke Fall yi bu ñu nee suba la màggal gi maanaam samedi ja le trois am na conférence bu ñu amal fii ci kër gi ñu ngi ci woo mbooleem daayira seeti këri Serigne yëpp. bàyyiwuñu benn daayirab setu kër ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo fas fas yéene ko ànd ak ñoom. bés bi incha allahu taala dimanche lay doon 24 fukki fan juróom-ñaar ci gàmmaw yi fii ci Jannatul Mahwa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina noo ngi séentu ñëpp di sant ñëpp di ñaan ku fi teew yàlla faj sa aajo ci barke Serigne Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. la ilaha illallah.